3S Pro. di leen kontaanee du mën a ñàkk bëru mbokk yi tey ñu fi arène nationale mbokk tey la samedi 29 29 avril la mbokk yi grand combat war dox si diggante Mbagnick Kaïré ak Mathia Pereira waaye actuellement nii li ñuy wax ak yéen combat spécial de la soirée diggante ak ki nga xamante ne mooy Boy Malika mbokk yi bu ñu nee Boy Malika xel day def si pël bu rafet moment national yàlla ko yàlla may wér suñu yaay jooju ñoo ngi koy ñaanal yàlla fëgg boppam eh, pël bu rafet wér rek jàmm ak salaam dellu soir si ñun nam nañ la soxla nañ la pël bu rafet moment national doomam mbéy bëre noonu moom Ama bu Malika wala moo Papa Laye Papa Laye mbokk yi moo ñu woon ginnaaw mbokk yi Boy Malika moo ñu woon kanam aj gàtt ga moom Boy Malika Papa Laye ki ngay bëreel Papa Laye ki ngay bëreel Papa Laye na respecté ku muy bëreel ki ngay bëreel respecté ko ndaanaan lay bëreel ndaanaan ngay bëreel de Abo Sañ Sañ maa ngi koy ñaan sama ndëwënal ba léegi joxaguma ko dan la ko jox dol la la da lay sàcc na ko Boy Malika jàpp daanaan bërëkat la fi mu jàpp baax na de fi mu jàpp baax na warul rëcc de moo waral muy daraat loxo yi gën ko bees beesal Papa Laye da ngay génn day génn kay fi ñu sore na yaa ngi sori na Papa Laye fi ñu la sore na maa du ko fàq indi ko na am gis nga eh lay eh! eh, mi Papa eh! lan la nii Papa Laye waaw waaw Boy Malika jël na avertissement mbokk yi ñoom ñaar combat bi nar a neex avant coup combat ma ñu kay rek ma ca bii mooy avant coup bi mbokk yi lamba loog dafa damoon naa nekk dafa daal di ñëwaat. lamb la Papa Layla. Papa Boy Malika. waaw oh, Boy Malika moo ñu. combat spécial de la Boy Malika moo ñu woon kanam. mbokk yi Boy Malika moo ñu woon kanam. Boy Lay Boy Lay moo ñu woon ginnaaw. Boy Lay moo ñu woon ginnaaw. mais combat neex ndax. ñaari samedi lamb ñaari tànk yi ñu teg moo tax mu neex. maa la wax loolu ku naa dóor morom mi. ku nekk mën naa dóor sa morom bu daal jël na la. gis nga gis lay sàcc. gis nga waaye lay sàcc na la eh, du ko si Boy Malika ko si daan lu yam. moo gis eh. tànk la du si génn. Eh. génn mbaru tànk la. waay waay waay waay Boy Malika mi. tànk la da siy génn. waay doomu pël bu rafet mi. gal na la. Palaay bul forcé Palaay bul forcé. na tey. Palaay bul forcé wóorul na tey fi mu tee baax na day deñ. waay lii bëre la waay. waaw waaw waaw. waaw waaw. hop hop hop hop booy bi ndaanaan la waay Boy Malika mi bëre na. non ndaanaan la. ñëwee fu ñu yàgg sori boo ñëwee da ngay wane jom wan ngor wan fula. wane fayda. am na fula bëre bi àgg da nga koy jeex. maa la loolu tey jeex bëre bi si. loolay jàmbaar sëriñ lii moo am solo. lii mooy jàmbaar fukki dëkk buñ la daanee de mérité wul. de mérité wul ndax fañ ko toll mu génn si. Papa Laye ma doon kenn du moom. yàgg nañ Papa Laye day delluwaat fa mu demoon. mais jàpp bi mu amoon dootu ko amaat. xool ko ma ngay tojat. lii la la. ma jël booy bi. ak ka mën a bëri Boy Malika sol na ko Boy Malika jàpp daanaan la daanaan bërekat la fi mu jàpp baax na de fi mu jàpp baax na waru rëcc de moo waral muy dëraat loxo yi gën ko bees beesal la Papa Laye da ngay génn day génn kay fi ñu la na fi ñu la yegg sori na Papa Laye fi ñu na maa du ko fàq indi ko si géew na am waaw indiwaat ko si biir gis nga eh lay leela la eh, eh Papa Laye mi Papa Laye mi eh! eh, la nii Papa Laye waaw waaw Boy Malika na avertissement mbokk yi ñoom ñaar combat bi nar a neex avant coup combat ma ñi kay rek ma ca perera bii mooy avant coup bi mbokk yi lamba loog dafa demoon naa ne kafe daal di ñëwaat lamb la Papa Laye la. Papa Laye. Boy Malika. waaw oh, Boy Malika moo ñu. combat spécial de la Boy Malika moo ñu woon kanam. mbokk yi Boy Malika moo ñu woon kanam. Boy Laye Boy Laye moo ñu woon ginnaaw. Boy Laye moo dina neex ndax. ñaari samedi lamb la. ñaari tànk yi ñu teg moo tax mu neex. maa la wax loolu. ku ne mën naa dóor morom mi. nekk mën naa dóor sa mu daal jël na la. gis nga gis nga da lay sàcc. gis nga waaye lay sàcc na la. Eh, du ko si daan Boy Malika ko si daan moo gis mu eh. jiital. mbëru tànk la du si génn. Eh. génn mbaru da siy génn. waay doomu pël bu rafet mii. gal na la. Palaay bul forcé. Palaay bul forcé. na teey. Palaay bul forcé wóorul baax na day deñ. Eh, waay la waay. waaw waaw waaw. hop hop hop hop booy bi ndaanaan la non ndaanaan la. Eh, fu ñu ko sore na. fii boo ñëwee da ngay wane jom wan ngor wan fula. wane fayda. am na fula bëre bi àgg da nga koy jeex. maa la wax loolu tey daa jeex bëre bi génn si. loolay jàmbaar sëriñ lii moo am solo. lii mooy jàmbaar fukki dëkk. même bu ñu la daanee de mérité wul. de mérité wul même bu ñu ko daanee. ndax fañ ko toll mu génn si. waaye Papa Laye ma doon kenn du moom. yàgg nañ faa toll mbër du fa génn. def na action. Papa Laye day delluwaat fa mu demoon. mais jàpp bi mu amoon dootu ko amaat. xool ko ma ngay tojat illallah moytul booy bi wala ma course ya ku la dàq bëre du la ronu ma course ya course yaa ngay wengaloo ma course ya ña ngay papa papa papa waaw course la lamba waaw waaw course yaa ngay wengaloo kii course kan la waaw waaw course Maguette la eh mais ñaari xale yu jàppante nañu Maguette oh Cheikh Boxor a toog 16 Cheikh a toog foofu am nga client boo dul yàqale indi papa lay waaye booy Malika mi booy Malika ndaanaan ñeexu ñebe kenn malaka wa a yuuxu lañ si yamale sa ñebe yaa ngi ma coach ya ña ngay wengaloo eh, coach ba tin waaw coach kan la lamba waaw ah, waaw coach yaa ngay wengaloo kii coach kan la waaw waaw coach Maguette la eh. mais ñaari xale yi jàppante nañu. Oh, Cheikh Boxor a toog 16. Cheikh a toog foofu ndeysaan. Cheikh toog Boxor am nga client boo dul indi Papa waaye booy Malika mi. booy Malika ndaanaan ñeexu ñebe kenn. Malaka wa. yuuxoog bañ a yuuxu lañ si sabab naa la ko. daa bëri doole. doomu pël ba daan na ko. booy bi moom Malika. waaye doomu pël ba daan na ko. oh tot tot sëriñ kii nit. pël bu rafet man dem. sëriñ kii du nit. doomu ma buddi ko dóor si suuf. booy Malika daan na. non Malika yàgg naa. général yanu na ko. bés booy général gi. dóor ko si am jom. mais daa kontaan day dem day dem nañ ko bàyyi xel day dem nañ ko bàyyi xel mbër feeñ na Malika xale bi nañ ko bàyyi xel abu mbër feeñ na Malika blessé woon hop hop hop boy bi day lekk de daa bëgg a jël boy bi mooy ban yow Serigne waaye Papa Lay mi Serigne kii du nit baal ma woo waaye Papa Lay aussi Lamalok Lamalok Balaye aussi. sama yaram bu tàngee démérité wul. waaw Balaye démérité wul. Balaye daa xamul ki muy bëree. Balaye bëri na daa xamul ki muy bëree. Balaye daanaan la. xamu ko Balaye. ah il a fait. xamul ki muy bëree. def na li nga xamante ni ma ngay tudd yàlla. def na ko Balaye ngay julli. def na li nga xamante ni. oh Balaye ngay julli Balaye gis nga ko. waaye nag booy bi booy bi ku gëm yàlla la. non booy bi ndaanaan la. ma jugal démérité woo. booy nii la yaa ma daan may yaa ma daan xañ. mbër mu ne war ngaa jàng si lii. bu si boolee jug dox rek toj fi. rafet la bu si boolee jug dox rek dox bi parce que su jot na oh. kon day dem gis nga ndeysaan non waxoon naa la ko non booy baal nañ la baal nañ la ndaanaan nga doon dajal lambang sa kanam ndeysaan ndaanaan nga xale o to to to to booy oh, dijj dëgër ko gën 3 espoirs